Ameth Deme na nga def. waaw mais maa lay ziar doom day naka yitte xam nga yow. waaw yàlla nu boole yàgg na. loolu ban année la. yàgg na man na maa ne kenn xamu ko. waaw yàgg na trop. waaw waaw waaw peut-être bi moo ma rëccoon rek moo tax ñu gëj a déggante. léegi moom ay paa lañ. waaw <laughs> non yaa ngi si maa ngi sant seen seen frère ah. comme d'habitude bu aaya rek ngeen ñëw euh, fan yi yëpp déggante ngeen xam naa mu am bis bu am solo. waaw sunu doom nday moo aaye mu nekk nit ku baax nit ku xamante ni vraiment borom xol jamaa bi laa koy woowee parce que moom dafa ñëw rek yaatal lépp. ah du taay benn yoon chaque instant mooy oote di nemmeeku xam nga am yëg-yëg si ñi nga xamante ni ñooy lutteurs yi ne fii kuy doomu caare rek am na si yow yëg-yëg kon ree gaaw a jooy léegi jooy bi sax xam na xaw na ko wàññi léegi léegi day ree rek bàyyi na jooy waa gis nga xol bee xol bee laa biir quoi xol loo tax mu mel noonu nit ku baax la kon donc bu amee bés yoon la ñu bàyyi suñu activité yëpp caare ñëpp ànd ak moom ñëw gunge ko tey incha allah la am moom ak Zarko Zarko moom i tamit yoon bi yoon boo xam ne bu koy ubbil ay buntam ci làmb la mu defaraat retard am non combat bi maa ngi koy wax biig rek combat qualification la tey bàyyam yoon bu ko daanee mën na ma wax ne day qualifié day dem si kaw parce que Zarko tamit champion la ndaanaan la kenn du ko ko bañal mais dafa fekk bàyyam ñoon jiitu ko si kaw peut-être nag am na dog-dog tuuti rek xaw a am retard tuuti rek mais incha allah liñ koy yéene tey mooy mu ñëw gañe combat bi mën a dem tey si kaw ay morom mooy ay tafatin ay modloo si kaw dem jëli roi bi voilà incha daal lañ koy yéene te loolu lañ koy souhaité incha allah ñaari mbër yu am xadar waaw ñaari mbër yu am xadar la loolu tax euh, combat la combat bu neex la mais incha allah li ñuy def rek waa tey rek xam nga Zarko moom moom day simb gaynde li may faral di wax waxtaan naa seeg ñoom day simb gaynde li muy wax loolu gëmu si dara moom xam nañ ko ruuru la xam nga ruuru mooy loolu ngay luqat rek mu ruuraat si suuf du ma sa xeex. ay wax naan wallaay laaj ruuru la du xeex moom ku ko xam-xam ku ne foorul si xeex. moom li dafa mel ni affaire naxante la. waaw moom stratégie lay teg mais ñoon xam na lim li sawaay teg lépp waa joon la ñuy wax mu dal rek mu xam ne ki muy dajee ruuru la du xeex te bëre bi tamit ñorul lim man mooy forcé ak nelam boobu quoi. incha allah dañ koy koŋ incha allah non daanaan la moom wax dëgg yàlla di ko ñaanal ndam lu seddu guy. waa si kanam rek incha allah bientôt jaajëf bége. tey combat bi dafa am lu ci laxasu. ñaar ñu am xadar ñaar ñu bëgg xeex ñaar ñu mën bis tey ku ci nekk lan moo la war booy commencé ci bàyyi ma waaw sànq yaako ko wax ñaar ñu am xatar ñaar ñu bëgg bis ñaar ñu yàkkamti bis teg muy Baye Mandione ak Sarko booy seet ñaari atta ñoom ñaar ñëpp dañuy attaqué kon combat bi tey booy seet lu bëri da cee mën a xew dóor mu daanu mën na ci am combat bu gaaw mën na ci am xeex ba dem ardo dellusiwaat mën na ci am parce que ñaar lañ yoo xamante ni kenn ku nekk da ngaa sa morom mais njoon ragal naa ni fi mu nekk nii tembe nag war naa dugg ci benn expérience boo xamante ni tollootul fu ñëw di di di yàkkamti combat wala muy caaxaane combat mais combat bi daal li ma la ci mën a wax mooy ñoom ñaar ñëpp ku gën a bëgg combat bi gën a respecté sa adversaire yow yaay daan. na dal. ah combat bi dal moo ko waree moo koy bëre parce que booy seet Zarko dafa yàkkamti bu at bi soufflé mu ngi sa kaw bàyyi ma yoon ku nekk xam na ni yow xam nga ko xam naa ko bu at bi soufflé mu ngi sa kaw léegi nag loolu dafay laaj nag dem gi bu leeree nga dem bu leerul bul dem bul dem ci fi teg ko ci fit déedéet làmb du fit kese làmb fit la njàmbaar la bokk na ci waaye xel da cee bokk calcul bi da cee bokk làmb mais tey yoon li mu war a indi bu nekkoon damaa nekk place am ak fi mu toll nii ak li def ci làmb ak fi mu jaar ci làmb man su ma ñëwee damay bàyyi Zarko bis bi tey direeku toog samay tànk di ko déglu boo déclenché ma daw jàpp la ndax bàyyi ñun am na bëre am na bëre Zarko tam di ko war moom mooy wut si jëmbat jom jëmbat fula calculer xam ne ki muy bëreel tam daanaan la bum ko xeeb parce que waru koo mën a xeeb sax boog mais waxin la xam nga des fois xale yi bu ñu amee ndam rek waaw na ko jox cër parce que mbër mu mag lay bëreel Baye Mandione bul fàtte ni moo dajeeg Gris Bordeaux bul fàtte ni Baye Mandione moo dajeeg mbay Diouf bul fàtte ni Baye Mandione moo dajeeg Boy Kéré i sax man Baye Mandione daje naa Boy Kéré Baye Mandione daje naa ak ay champion yu bëree bëri Modou Lo daje naa daje naa Djily Mbaye bu Faas moo ko def mbër Djily Mbaye bu Faas kalimatul haq